rahim daaroo ngi Tuuba di màggal réew mi di màggal maam Cerno Faati daaroo ngi Tuuba di màggal réew mi di màggal maam Cerno Faati ca weeru saabaan ca nisfu saabaan la rañaan jëm daaru mooti ci weeru saabaan te nisfu saabaan la ñëpp rañaan jëm daaru mooti màggal si waaja si yar jumaaja ci sama waaja maam cerno faati ma tagg cerno ak jëfi cerno ban xam ne cerno mooy ibra faati moo am maqaama bisub qiyaama Gacang ma maam Cerno fati saadix bi yow la Cerno kamala warna war roy la maam Cerno fati denkane wolu Ibra Xaliilu ka Bamba doyloo mooy Ibra Faati Cernoy imaama rene karama laaj leen ma mooy rakki bamba magum ma samba cerno di bamba jaara di faati moo amee sañ mëne fula foñ Seex Jeey mooy kañ Seex Ibra faati am na wilaaya taraw na gaaya dënnam bayaana Seex Ibra faati am na wilaaya raw na ca dënnam ba yaana Seex Ibra Faati cerno di ndaana di bëxru rahmaan wane na kiimaan moom cerno Faati maam cerno yaa baax ta ko la xam baax yaa weesu kuy baax maam cerno Faati mësula bàkku duree ba kekku lee tax ma way ko maam cerno Faati ilmu diraya la rawe gaaya rango medaya mam Cerno Faati daana joxe jur ak luy jarugu jur bi léegi yaay mbër mam Cerno Faati nawet bu gantu mësul ko jooytu mësul di ñaxtu mam Cerno Faati ragal na buur bi topp yonen bi bëggoon sëriñ bi maam Cerno Faati nim bëgge maam daam lum bay di jox daam ci rakki maam daam maam Cerno Faati nim bëgge maam daam lum bay di jox daam ci rakki maam daam maam Cerno Faati nim bëgge maam daam lum bay di jox daam ci rakki maam daam maam Cerno Faati lum masa am jël jox bamba mi fal seex bamba moo fal mam cerno faati mam cerno bamba bamba yonen ba ku sopp bamba mam cerno faati xolam ba daasooy ti yàlla daasooy ci bamba xaacuy seex ibra faati ku dul borom bi yonen bi mbaa muy sëriñ bi ibra faati gannaay yi lay gaay cerno di saawaay moo gën ndey ak baay Seex Ibra Faati gannaaw yi lay gaay cerno di saawaay moo gën ndey ak baay Seex Ibra Faati cerno dama neex lim jëf dama neex defar na ay seex maam cerno Faati sampe na daara sarsaara nan leen siyaara Seex Ibra Faati lim yarti dongo jaaxal na pël ko xam ko raw nga Maam Cerno Faati lim yarti dongo jaaxal na pël ko xam ko raw nga Maam Cerno Faati murid ya Tijaan Xaadir wa Soodaan xam nañ ko bii daan mam cerno faati mam cerno laa yéem toolam ya laa yéem am ngorga laa yéem mam cerno faati dadaa sa kooko or di julli yor yor du dox ci tàngoor mam cerno faati naafila sikar joxoon na leen cër buur yàlla wan mbir mam cerno faati cerno di docteur fañ na ña daa nuur lu sànq ak leer mam cerno faati yow mi di laajte ki daafi atte lu metti metti mam cerno faati faj raggi xol yi ak raggi kër yi raggi kër mam cerno faati yërëm jirimi kasa faqiiri mooy saytu mbiri mam cerno faati doyloo boroomam moo doon walooram ma kañ ko yaaram mam Cerno Faati te la jàmbat mësul di leñ mbët moo gaaw ci kër mat mam Cerno Faati te mus la xaste mësul werante kum yee yeete mam Cerno Faati te mus la xaste mësul werante kum yee nga yeete maam Cerno Faati xelam ma daa ñëw mënee fu ka raw moo jiitu moo raw maam Cerno ma daa dal te fit wa daatul dundam ga gàkkul maam Cerno Faati yar nañu am yar te mus la yor yar yàlla ko jox cër maam Cerno Faati yar nañu am yar te mus la yor yar yalla ko jox cer maam Cerno fati day nit ku xam nit ta mana faj nit kum yar nga am fit Cheikh Ibra fati jëmmam ja day yar waxam ja day yar wa day yar maam Cerno fati xolam ba day yar doxin wa day yar wa day yar Cerno fati xolam ba day yar doxin wa day jëfin wa dayar maam Cerno Faati xoolam ba dayar doxin wa dayar toogin wa dayar Seex Ibra Faati yar na murid yi toxal murid yi sellal na xol yi maam Cerno Faati bégal nga yàlla bégal ndawam la man tay ma way la Seex Ibra Faati bégal nga yàlla bégal ndawam la manta tay ma wayla Seex Ibra Faati bégal nga diine ak gaayi diine rafet nga yéene Maam Cerno Faati bégal nga Bamba ak gaayi Bamba ci rakki Bamba Maam Cerno Faati mooy kaang di foore jeexali téere kii man na waare Maam Cerno Faati mooy kang di foore jeexali téere kee mën a waare mam cerno faati kënoo ki ay bal tubaab bu ñangal du taxa tiital mam cerno faati kënoo ki ay bal tubaab du taxa tiital mam cerno faati luy takk nekk daay ci xeetu ngannaay tiitalul jiwaay mam cerno faati luy takk neg ay ci xeeti ngànnaay ci telul jiwaay mam cerno faati cerno di sun mbër defar na sun mbir yàlla ko jox cër maam cerno faati cerno di sun mbër defar na sun mbir géej la gudul fer maam noo Faati Cerno di sun mbër defar na sunu mbir yàlla ko jox cër maam Cerno Faati Cerno di sunu mbër defar na sunu mbir géej la gudul fer maam Cerno Faati nañ leen ko sargal wayal ko màggal Qur'an ji ñaanal maam Cerno Faati nan am tuyaaba ci barke Bamba barkab yonen ba mam Cerno Faati nan am tuyaaba ci barke Bamba barkeb yonen ba mam Cerno Faati salli wa sallim ala al mutammim bijaaye xaadim mam Cerno Faati salli wa sallim ala al